taxiyatu ahlul janna ala wa hiya assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di ginnaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli si sangu-sanga yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal réew mi fa tabarakallah yàlla na fi yàlla def jàmm di wax seen xarit seen soppe Oustaz Assane Mbengue parce ne leen indil émission bi nga xamante ni fa tabarakallah moom lañ naan daaray Malick Ndiobou di si gërëm ñi nga xamante ni fatawarkallah ñooy waa MIK TV seen président di maam Daawda ñu ngi koy ñaanal borom bi tabaaraka taala na ko yàlla yokk ko ba mu yëkk di ñaanal góor gi Malick Ndiobou fa mu tëdd yàlla na yàlla gën a leeral bàmmeelam bi jaahi Taaha Habibi Muhammad sallallahu alayhi wa di jaare mbokki jullit yëpp fatawarkallah di ànd ak yéen rek ci émission bi. tay ñu indi li nga xamanteni ni mbokki jullit yi mom lañ naan taqwallah taqwallah nag buñ ko waxee rek dafa bëri ay branche yo xamanteni bu taqwallah nekké ci yow branche yo yépp dang ci am waaye bu taqwallah nekkul ci yow branche yo yépp dang koy perte buñ né taqwallah nag moy ragal borom bi tabaraka wa taala ndax ni ñuy ragalé borom bi ah ni ñuy ragalé nit ndax ñaar yooyu man na yem wala amna différence borom bi tabaaraka wa taala niñ koy ragalee mooy ka ni lan dafa indi ñaari yoonam tekk moo tax mu wax si alquraanul karim ne inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura ñaari yoon yooyu nag benn bi dañuy nangu wala ñu bañ a nangu bi ñuy nangu mooy yoon bi nga xamante ni moo ñu jëmale si siraatal mustaqim waaye yoon bi nga xamante ni fa tabaarkallaa nag moo ñu jëmee si yoonu seytaane fa tabaarkallaa ñun ñëpp dañ ko war a moytu ndax seytaane suñu noonu la mbokki julli di yàlla suñu borom dafa wax si alquranul karim baad audu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim ya ayuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun damay faral di wax di aaya bi ku ci nekk war nga ci bàyyi xel boo ci bàyyi xel nag nga taxaw def si seetlu ndax yàlla suñu borom bu ne yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm yàlla mu ni ittaqullaha na ngeen ragal borom bi tabaraka wa taala lan la ci teg xaqa tuqaati baatu xaqa tuqaati ku ci nekk war nga cee def taxaw seetlu xool lan moo tax yàlla utiliser baatu xaqa tuqaati mooy dëggi-dëggi ragal yàlla mënoon na ne rek ragal leen yàlla mu pare ci mais li tax mu ne xaqa tuqaati mu teg ci leen wala na illa wa antum muslimun képp ku nekk ci ñun waroo ñaan borom bi tabaaraka wa taala nga nekk ci àdduna ba yàlla suñu borom jël la te taqwallah amul ci yow boo xoolee yàqu-yàqu te jamono bi yow danga naan ndax taqwa bi nga xamante ni moom la ñi nga xamante ni fa tabaarakallah mooy suñu mag ñu baax ñi moom la ñu amoon ndax dañu dem yóbbaale ko ndax boo xoolee jamono tey li fi am lépp si ay ñaawteef ñàkk am xàqatuqaati moo ko waral da xëy ñu ne rey nañ nit. da ngay xey nit di saga wajuram da ngay xey di gis ñaawteef yoo xamante ni nit bu amale ragal yalla ci bopam lolu da koy jomb pour mu def ko nit ragal yalla bu nekké ci sa bir xol da ngay jomb def yena bakari da ngay dem ba da ngay am kerse yow ci sa bop kerse gi moy ka lan ah waruma fen Waruma njaalo Waruma def xeeti ñaawteef yi nga xamanteni yep day tax ëlëk yalla suñu borom duma ma ci kon xeeti ñaawteef yooyu yëpp boo ko bañee def nag da ngay am xaqatuqaati mu nekk ci yow kon ragal borom bi tabaaraka wa taala ñu gis ni bu nekkee ci yow day mel ni base la boo xamante ne tey moo lay yóbbu chaque jour ngay atteindre objectif boo xamante ne fa tabaaraka la da lay jëmale ci borom bi tabaaraka wa taala pour ngay jëf jëf ju baax waaye bu loolu nekkul ci yow nag doo mën a jëf benn jëf boo xamante ni fa tabarakallah da lay jëmale ci borom bi tabaraka taala te bu boobaa seytaane lu mu la bëgg a def rek da lay manipuler di la ko def beneen bi mooy que ni boo xoolee yàlla suñu borom ñi mu yónni yëpp parce que yàlla bind na cent vingt quatre mille mu yónni trois cent treize vingt cinq ñoo ñëw ci alquranul karim mu des cinq muy uulul ange bi ulul azmi yooyu muhammad sallallahu alayhi wasallam moy sen kilifa moy sen njit yàlla dimbali ñu bañu ñu bokk ci xeetam ndax bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam no sens la du ni da ngay dégg nit naan dama mérito li wala yu kenn xamul mais sens la kon ku ci yàlla boole rek am nga sens bo xamanteni ni ëllëg ñaan nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga bokkax mom fa nga xamanteni moy dekkuway dëkkuwaay yàlla bu la dimbalee nga bokk ci aw xeetam war nga gën a góorlu pour bokk ak moom dëkkuwaay bokk ak moom dëkkuwaay boobu nag foog nga am xaqatu xaati mooy dëggi-dëggi ragal ndax yàlla suñu boroom dafa wax ni ëllëg yowmal qiyaam illa man atallah bi salbin qalil kon ëllëg yowmal qiyaam yàlla soxlaaw lu dul lan xol bu sell la illa man atallah bi qalbin salim kon yàlla xol bu sell la laaj xol bu sell nag bu ci taqwallah nekkee ah fa tabarakallah macha allah nit kooku waaye bu ci nekkul nag xalbun salim doo ko am ndax boo xoolee ñooñu ma limal la yëpp muy yonente yi ndax yàlla bind na ay yonente yoo xamante ni yónni wuñ leen du ni rek yonente boo gis rek dañ ko yónni déedéet am na ñoo xamante ni ay rasul lañ duñ ay mursal am na ñoo xam ne ay mursal lañ ba pare rasul lañ ndax mursal boo gis rek rasul la ko dégg muy yonante bu yàlla yónni rek xamal ni ab yonante la waaye yàlla bind na ab yonante ba pare yónniwu ko kon loolu foog ñu bàyyi ci xel ñooñu yàlla yónni yépp bi ñu ñëwee nag li ñu digal mooy lan topp borom bi tabaaraka wa taala ndax yàlla tamit wax na lool ci alquraanu karim nee na binduma nit ak jinne lu dul lan ñu jaamu ma kon nag wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisiina lahu ddiin kon yàlla suñu boroom kat digaluñu pour lan lu dul ñu jaamu ko jaamu boobu nag dañ ko war a sellal kon war nañ di mën a sellal suñuy jëf yépp ndax ëllëg bu ñuy dajee borom bi tabaaraka wa taala ñu bañ a sëgg ndax boo xoolee yàlla suñu borom ñooñu mu yónni ñépp muy yonente yi li ñu doon digal mooy taqwallah boo xoolee taqwallah li muy def ci nit mooy que ni nit dinay dox nii yaram bi rafet léppam rafet te xol bi dara rafetu ci da ngay gis ne habillage la dañuy faral di wax ni àdduna bi ñu nekk nii dafa doon benn màgget boo xamante ni nii day defaru ba rafet boo ko séenee nga yaakaar ni àdduna bi fa tabarkalla jànq boo xamante ni bu am 15 ans la wala bu am 18 ans ndigeex jekk bi mu jekk ndekete yoo tey boo ko sotti woon ndox mu doon màgget goo xamante ni li yàlla xam doy na. kon àdduna noonu lay naxee nit kon nit taqwallah bu nekkee ci yow nag loolu da nga koy teel a xam balaa seytaane di la dugal ci li nga xamante ni mooy kaas kaasam boobu beneen bi ñu bëgg a waxaat rek mooy tax taqwallah ñu ni bu nekkee ci yow ah tamit fan la war a nekk ci nga xamante ni mooy doomu aadama bi parce que dafa am loo xamante ni xol moo ko moom li xol moom boo ko joxee gémmañ lor nga xol te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jëmmi doomu aadama ah ni muy mel lépp li ci ëmp importance moy li nga xamanteni fa tabarakallah moy xol bi ala wa hiya al qalbu nee makanuhu ahammu udwin min a'dail insaan nee na place bi muy nek mo ëpp solo ci li nga xamanteni moy yaramu doomu aadama wala li nga xamanteni moy ciri doomu aadama mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj loolu lan la yonente bi mu ni loolu mooy xool kon ñu gis ni xol bu sellee fa tabaarkalla jëfi doomu aadama bépp dafay jaare sell waaye xol bu tilimee kat doomu aadama lu mu yóotu lu mu jëm rek dafay fekk li nga xamante ni mooy ak tilim tilim te yàlla suñu borom boo xoolee jamono ah ni mu mel tey képp ku amul li nga xamante ni mooy ragal yàlla dañ naan perte nga ndax inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci ñun mooy ki gën a ragal borom bi tabaraka wa taala ndax boo xoolee yàlla suñu borom dani yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm borom bi tabaraka wa taala mu ni innaa xalaqnaakum dama leen bind min zakarin wa unsa si ay góor ah ay jigéen kon ñu gis ne adduna bi ay góor ñoo fi nekk ah ay jigéen wa jaalnaakum suuban wa qabaila mu defal ñu ay xeet ah ay giir kii day dëkk Fuuta kii dëkk Mali kii dëkk tàmba ku ci nekk afa nga dëkk kii doon joola kii doon soose kii doon séeréer ku ci nekk ax la doon mu mel ni yàlla dañ ni ko lan nga jublu ci lii yàlla ne inna akramakum inda allahi kii gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal borom bi tabaraka wa taala kon yàlla ñu yàlla defal taqwallah si suñu biir xol yàlla def ñu ay dëggi dëggi jullit yàlla sàmmal ñu boppam lépp loo xamante ni fa tabaarakallah doomu aadama bi mu ngi koy yootu si jaamu borom bi tabaaraka taala yàlla na ko ko yàlla yombalal tabaarakallah di ziar ñëpp di santaan ñëpp rawatina waa MIG TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm fa tabaarakallah ki nga xamante ni mooy seen njiit maam Daouda Ciss ñu ngi koy gërëm baax a baax a baax lii la leen daara Malick indi loon incha allahu rabbi bu ngeen ñuy topp si kattanu borom bi tabaaraka di dinañ leen jukkil li nga xamante ni fa tabaarakallah lépp moom la daara ji di indi. di ñaanalaat góor gi yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanay firdawsi bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant suñu waajuru bopp di gërëm mboolem képp koo xamante ni yaa ngi teewe MIK TV yal na la yàlla doori sutura wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah